mbokk yi euh, tey la dimanche octobre waxtu bi may wax ak yéen pratiquement 18 heures jot na ci Ndakaaru ak li ko wër mbokk yi en gros dama bëgg a de l' de la semaine parce que réeréewul leen ni mbir ni waxoon nañ ko ci fan yi ñu génn ki nga xam ne mooy. Euh, Alioune di président Africa John Center te kon euh président secrétaire général du Moes pour RADO, la rencontre africaine des droits de l'homme jël na euh, bandam ni mag bu baax ko wara a ci réewam kenn réew mi dafa nga ni da ngay indi jàmm ci réew mi tax na Alioune dem na seeti ki nga xamné moy Ismaïla Madior Fall moy le ministre de la justice waxtaan ak moom xamal ko ni euh, réew mi dafa soxla dal réew mi dafa soxla jàmm te jàmm jooju li koy gën a li koy gën a gaawal mooy képp koo xam ne euh, tàppale ak i politique ak i diil moo tax ñu jàpp la dugal leen ci kaso gi nañu leen bàyyi ñu ñibbi seen kër comme ni ma leen ko waxee woon tout le temps euh, dañuy wax ni fu justice amul fu dëgg amut jàmm am ko fa dafay jafe te it saa su ne ma di ko wax képp ngeen gis muy woote fitna dafa xamul luy fitna parce que bés bu ko fitna wuyoo da ciy doyal sëkk li ko mooy bu amee ñoo xam ne weddi nañu loola nañu fàttaliku mars deux mille vingt et un keroog ñëpp ñi nga xam ne taxawoon nañu bëggoon kut ko kut ay njàmbaarloo ak yeneen am ci réew mi ker bañ ci yeggee ñu ci bari bu ñu jëloon billet daw génn réew mi làqu nañu ba kenn gisul fa ñu nekk donc la nga xamné mo xewon euh, daw euh ba légui les mêmes euh syndrome ñu ngi fi ba légui les mêmes dangers sont en train de guetter le Sénégal mais mu ngi melni amna am nit ñoo xamné loolu lañ ma gëmlo ñooñu fitna la ñuy dundee boo amulee fitna ñoom kontaan nañu donc lu ñu bëgg mooy saa su ne Sénégal di nekk ci guuta tax na Alioune Tine mi nga xam ne bi pratiquement mën nañu wax ni les vingt dernières années bi may xam Alioune Tine jeune reporter laa dama ko doon fekk ca rajo rencontre yu métti yi nga xam à ne fitna yi am ay Gambie fitna yi am ay Mauritanie ak à yu mel noonu yooyu lay dox di ci jéem wuti jàmm kon dey kooku bu réewam tolloo fii ah, yoon la mu jóg mu dem seeti ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi wax leen nañu fexe ba jàmm daal di dellu ci Sénégal joxe na nag ay tur ah, ñett jiitu mooy Karim Xrum Xax ak ki nga xam ne moo di ah, le professeur Cheikh Oumar Diagne ndaxte bu ngeen di fàttaliku ñooñu li taxoon ñu teg leen loxo mooy loolu ñoo waxoon ni Imaam Ndao bu fekkii nii euh, fitnay kaso yi ñu ko teg amuloon amaana bakkanam du des gaaw a des noonu loolu tax na ñuy téye leen booba léegi nag mu mel nii dossier bi dañ ci nàmm leen muy ay instruction lu leen di gën a sonal ñu nekk ca loola ñeneen ña ca topp nag mooy euh, papito ak ki nga xam ne mooy euh, <coughs> mooy le jeune Ousmane Diagne que wax dëgg yàlla bu fekkee ne am na accusation bu gën a ridicule bu gën a ñàkk xorom ci kaw ci kaw ci Sénégal te ñu mën koo jàpp ay nit dugal leen ci kaso bi la gën a ñàkk xorom mooy ñu jàppee Papito ak ki nga xam ne mooy Ousmane Diagne parce que la ñu toppee Papito lan la nee nañ dafa def revue de presse benn une boo xam ne dañ ko détourné lan la ñu jàppee Ousmane Diagne dañ dafa partager une boobu boole ko ci ak ay reetaan ma fàttali leen ni loolu dafa bokk ci li ñuy wax.

ñu ci bari ñi nga xam ne xam nañu Canal Horizon am nañu opportunité de seetaan mais les guignols c'est ce qui ont fait la la la réputation de Canal waxuñu lu dul waxulu nit ñi lu ñu waxut di leen daan di leen kaañoo di leen def noonu donc bu ñu xalaatee ne ci Sénégal mën nañu jàpp nit ca loola dugal ko ca kaso bi donc il y a de quoi être inquiet pour le Sénégal ñooñu nag la ki nga xam ne mooy euh, Alioune Tine ne nañ leen bàyyi. nañ leen bàyyi ñu delluwaat seen soxla nañ leen bàyyi ñu delluwaat seen njaboot nanu arrêté di jàpp ay nit ñi di leen dugal ci kaso bi Alioune Tine dem na ba tuddi leen ay détenu politique te nga xam ne moo di Madiambal Diagne meroon na ci woote boobu waaye bu leen fàttali ni la plu de ñooñu ñu jàppee jàppewuñu leen dara lu dul seen appartenance wala seen njege kii nga xam ne mooy Pastef wala seen mbañ parti bi nga xam ne mooy bennoo coalition bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar yemul ca Ousmane Diagne euh, Karim Khourou Xaq Abdou Karim Gueye ak ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne nee na it nañu bàyyi ñi nga xam ne dañ leen tuddee ca force spéciale te ma wax leen ni c'est la force spéciale parce que bi aduna di ak ba tey maanaam mu gis benn terroriste boo xam ne dafay raté muy daw di laaku bu dee làqu dina dugg ay police wala yooyu ab terroriste nit la xam ne dafa engagé jël bakkanam jaay ko bëgg def opération boo xam ne ci bakkanam des bu ko ratee day fagaru ji day préparé wu di jugaat bu mu xool naka lay dalaatee ci beneen yàlla mu ngi sant yàlla ba ñun yemuñu ci Sénégal yàlla dafa def ñu fekkee ay dëkk yoo xam ne terroristes yi frappé nañ leen ñu jàng li nga xam ne mooy mentalité terrorisme bu ma naroon na avancé sax mun ne auditionné nañu wala participé nañu wala suivre nañu ay audition yi nga xam ne ay vrai terroriste lañu terroriste du dalu gannaaw kon yal nañu la musal ba ñu mën a am terroriste fii ci Sénégal euh, tax na sama xel dafay dem ci Yaya Cissé bi nga xam ne tailleur la tànk bi baaxut tax na mu nekk jafe-jafe physique moteur boobu ba ay mbokkam ñu ne nañ ko jàppale ñu cotiser ko Yaya Cissé boobu nekk tailleur ca Tëngéej pour mu mën a am atelier tailleur ci atelier tailleur boobu la daan nekk ay xaritam ñuy waxtaanee waxu Pastef wala yu mel noonu fa la jàpp Yaya Cissé ca kaso bi pour terrorisme Yaya Cissé yem ci moom ami jaax ñaan ko bàjjan na génn jigéen boo xam ne dañ koy yónnee xaalis su bari dafa mel ni ñun kenn ku ne ci Sénégal tey yaa ngi ci danger parce que tey jii ku jëloon sa xaalis nga yónnee ko kenn nit ki jëndalee ko euh, pétard wala yooyu bu ko defee ñooñu ci loolu lañ leen bàjjan naa den mooy mennum jigéen bi nga xam ne dugg nañ ko ci complot bi ñu dugal ko ci kaso bi boobu léegi mu ngi fa au total ñu war fa bu leen fàtte it ki nga xam ne naroon nañ ko dugal ci tàppale bi mooy ndem si yàlla le prince des Mangaañ François Mangabou nga xam ne dugal nañ ko ci tàppale bi ba far mu mujjee des seen loxo donc ñooñu nga xam ne mucc nañu ñooñu nga xam ne ñu ngi dund ñooñu nga xam ne wóor nañ leen ci kaso bi tegal leen tàppale boobu moom la Aliou Tine ne dafa bëgg ñu bàyyi leen Ismaïla Madior Fall nee na ko dégg naa la dana ko waxtaanee ak ki nga xam ne mooy buur ba mooy le président Macky Sall bu ko defee ñu xool ndax dinañu mën a yegg ci loolu lu ci mënti nekk lu ñuy ñaan yàlla mooy yàlla def yërmande seen xol ba ñu mën a bàyyi doomu jàmbur yi ñu mën a dellu ci seeni soxla su ma taxawee euh, position boobu dafa fi ni kaso dafa di li doy waar doomi adama kenn waru koo dugal ci kaso lu dul mu nga xam ne amuñu benn solution pour protéger la société wala protéger cet individu là contre lui-même et contre la société moo tax ñu koy dugal ci kaso loolu mooy vocation kaso mais plus gis nañ ko de plus en plus ak nguuru surtout nguuru président Macky Sall foog nañ ne képp ku d'accord ak ñoom dañ koy dugal ci kaso bi te plus ñuy dugal nit ñi kaso yi plus nit ñi di radicaliser wu que doomi aadama mun nga changer lépp ci moom mais li nga xam ne moo nekk ci xol bi li nga xam ne moo nekk ci xel bi kooku kenn mënu ko dindi mun ngeen ko privé de liberté mun na nekk deux trois ans mun na loo leen neex mais doomi aadama ak li mu gëm loolu kenn mën na koo dindi donc yi déglu li nga xamné mom la aliou tin wax ñu daal di delloo ñii su may wax ñi sama xel dafay delluwaat encore ci René Capé Mbassène ak ki nga xamné moy Omar Ampoy Bojan bu len faté ni ci njàlbeen bi ñaar lu ñu won ak juróom ben ñu taxawal kanamu Sénégal yépp ak kanamu Adina ñu ne tuumaal leen ne leen ñu ñoo rey fukki bakkan ak ñent ci foré wu bofa bayot ñu

René de Kadiapo dans le du 13 au 14. Le 18, le, dans du 13 au 14 janvier 2018. Sornam am le 18 janvier dem ci compte bancaire bi pour jéem a jël pour li nga xam ne doon salaire ou René parce que René conseiller en communication bu ANRAC la ANRAC di gouvernement weer wu ne dañ koy fay presque un million Sornam dem pour jël fa

un juge d'instruction amagul ci mais mu mel ni loxol gendarmerie rek lañ nekk procureur ak gendarmerie ñu am pouvoir boobu demander banque ñu dagg li nga moyens salaires. salaire alors que lu mat juróom ñetti nit wala lu ëpp loolu ñu ngi yaakaar ci salaire boobu te teguñu ko fenn alors que la loi elle est très claire Un fonctionnaire balaa ñoo dagg salaire am dafay fekk ñu condamné ko à une certaine peine ñu juger ko ba reconnaître ko coupable ñu condamné ko ñu doog a salaire

ñu war a xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que ñu ngi yàq ay nit ñu ngi détruire ay vie ñu ngi yàq ay nit ñu ngi détruire ay vie te ñoom ñu bëgg a continuer toog seen kër ak seen njaboot continuer comme si de rien mbokk yi su ma leen sous ouverture des classes commencé sama xel dafay dem ci njaboot googu René ba seen Baye te amuñu kenn benn soubassement amuñu kenn ku ñu compter ku seen yaay jooju ak ñii nga xam ne les bonnes volontés ñi nga xam ne ñu ngi leen te yàlla tax sama xel dafay dem ci Oumar Amboy Bodian parce que gannaaw bi leen Kéwoulo waxoon ñu leen Kéwoulo Babacar moom sax chef rebelle la gannaaw bi ñu leen waxee noonu lépp ñoom ay juge sénégalais yoo xam ne Babacar Touré mënu leen nañu. ñu xamale ni la Bakar waxoon la kiwloo waxoon mooy dëgg ñi defuñu dara ñu daal di bàyyi ñaar fukki nit ak ñeent kenn ka maa ngeen koy fàttali saa su ne Seyni Sané quatre-vingt-deux ans juróom-ñetti fukk ak ñaar dee na seen loxo ca kaso la te ba tey amul benn compensation amul benn lettre de njëkkal amul dara la ñu waxal njaboot gi ñeneen ñaar ñoom dañu bëgg juste pour nu couvrir justice ñu daan ne Ampoy ak ki nga xam ne mooy euh, René Capain Bassène yéen toog leen tuuti boobu léegi ñu ngi ci kaso yi ba léegi mbokk yi suma ma su ci phase boobu dafa am loo xam ne lu metti sama xol la maa ngi leen di wax doomi aadama dundam dafa sacré doomi aadama kenn warul fooye bakkanam doomi aadama boo ko naree nëbbu jant bi na fekk ci li nga koy teg lu leer la ci li nga koy teg amul sikki sàkka li nga koy teg dafa fekk nga bëgg a prévenir société nga bëgg a protéger nit kooku contre boppam su ma leen di wax loolu sama xel dafay dem ci kenn sunu morom Ibrahima Sëy su ma ne Ibrahima Sëy mën naa am ñu bari tuur lan wax dara mais su ma leen ne Imaam Sëy ma nga xam ne jàppoon nañ ko fële ca Kolda pour apologie du terrorisme en 2015 bu ngeen fàtte ni 2015 le 7 janvier 2015 nous avons benn xew-xew boo xam Paris la xewoon mooy l'affaire euh, Charlie Hebdo moi journaliste yu kacapan yooyu nga xam ne nee ñu dans ñu saga dara bi sallallahu alayhi wa sallam taxna ñaari nit Saïd ak euh, Chérif Kouachi ñu daal di jug ne dañuy fayu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam

ñu mel ne suñu président Macky Sall mi nga xam ne àndoon na ak ñeneen ci ay ñoñam ñëw foofu ne je suis Charlie imam Ibrahima euh, Seye nekki sénégalais yëpp dafa ñaawlu le fait que ab président boo xam ne mu ngi jiite réew moo xam ne juróom-ñeent fukk juróom yëpp bu ñu nekkul tulit ay dañoo gëm yàlla mu ne njiitu réew bu mel noonu war da dem ci marche bu mel noonu mu marche la mu daal wax la nga xam ne la yonent ba waxoon te ña nga xam ne ñu jàppale ñi koy dingat wax la yàlla wax la alxuraan wax imaam euh, Ibrahima Sëy boobu benn xaritam toog ca wet wa enregistré ko jël enregistrement bi jox ko ñi nga xam ne ñooy autorité administrative yi ñu jël enregistrement boobu jébbal ko li nga xam ne mooy procureur de la comme jamono jooju dinaa ngi fàttaliku jamono jooju képp ku doon wax sax ashhadu an laa ilaaha illallah anna muhammadan rasulillahi wala nga fësal yenn fës yenn ngëm yi fësal ko si biir kër ñu ngi lay wóor pour mu ñu waxee ni tubaab yi ñoom ñu ngi lutter imaam Ndaw ak ñi nga topp ñëpp ci jamono jooju lañ leen jàppee noonu lañ demee dem jëli ki nga xam ne mooy Ibrahima Sëy duggoon ko ca kaso yi bi ñu koy jugé procureur dafa requérir dafa laaj nga xam ne mooy juge bi mu ne kii benn atu kaso laa koy tëj moo purgé kasoom sept euh, mois de euh, juillet août 2015 mille yooyu leen ko jugé boobu président Macky Sall mu tukki am fu mu dem ay journaliste laaj ko ne ko sa réew dafa am benn benn benn benn imam bu mu fa jugé pour approche du terrorisme mu ne leen waaw d'ailleurs atte bi ñu ko daan bi ñu ko daan dafa néew ci man danaa demander à ce que ñu def appel

jamono jooju ñu koy jàpp ñaar fukk euh, ñeent euh, trente-huit ans la amoon fanweeri at juróom-ñett am ñaari soxna soxna bu ci rek am nag yow juróom-benn bant professeur la du du du jàngut dafay jàngale histoire géographie ci lycée Alpha Moulo Baldé bu bu Kolda mais diineem ak ngëmam tax na même mu nekkee xale dafa bëgg a dund sunna ñu dugal ko noonu ci kaso bi génnee ko gannaaw bu mu fa defee ñaari at ñu dàq ko liggéeyam automatiquement fekk moom commencé woon a taaba boobu jas commencé woon tabax këram ñu daal dagg salaire bi li nga xam ne mooy teraangaam ñu daal di ko dagg comme ni ñu defee kee nga xam ne mooy René Capain Bassène xëy dagg salaire bi que mu di beneen beneen arme bu doy bi nga xam ne gouvernement Macky dañ koy utiliser contre nit ñi dàq leen seen liggéey yàqal leen seen teraanga noonu ñu xëyee dàq ki nga xam ne mooy euh, Ibrahima Sëy tàgg sagaram loolu commencé perturber ki nga xam ne bàyyu fukki nit ak ñaar la te këru ñaari soxna la mu nekk li débrouillé wu hmm, jàmbaar nag bañ a toog lu ne mu dugg ci wéccé di mu ndaw yi mu yor mu dajalé ko ay mbokam jappalé ko mu lim jënd ay livre alcorane ku bor wa kam fekkon ko mu tegoon fa tablam di jaay parce wa wa kam la mu rek di taba taba lol liggéey bobu doxut mu mujjé yor glacier euh du moins café Touba di wër ci plage dakar yi di jaay café Touba ci ko xamné professeur la ci ko xamné dafa jang am licence am jàng dem université fexe nekk excellent sur tout son son son son cursus scolaire ñu mujjee ko transformé jaaykatu café Touba ci noonu mbokk yi la Ibrahima imam Ibrahima Seye nekkee finalement mënatul supporter bopp bi commencé dem mu commencé indi ay fitna mu commencé ci koo xam ne dafa bëggoon njaboot commencé di bëgg di menacer. bëgg a dóor wala di bëgg a rey naan sama jabar dama lay rey wala sama doom dama lay rey fitna daal di dugg parce ku àndatul ak sagoom ku àndatul ak xelam noonu la déparé njaboot di tas kenn ki ci soxna yi ñibbi nekk Dakar kenn ki daw dem Saint-Louis soxna yi tey amuñu benn support soxna yi tey amuñu lenn ci lu ñu jàpp ak seen juróom benn doom yi kenn ku ne taawam mu ngi am

koo xam ne mu ngi doon dund dund diineem mais dafa dafa yëkkati kàddu ne ànduma ci li njiitu réew Sénégal dem di toxal Charlie Hebdo tax na ba kooku tey dafa bokk ci ñi nga xam ne tàggoo nañu ak seen sago mu ngi nii mbokk yi ñu jël ko yóbbu ko hôpital Fann hôpital psychiatrique bu Fann di ko faj ci fi ñu faje dof ya imaam bi nga xam ne jàng comme ñëpp am ay diplôme yaakaar ne day servir los euh, dëkkam ñu jox ko jàkk foofu ca Kolda mu di ko jiite la indi fitna bi yëpp mooy dafa wax la yonent bi wax ak la yàlla suñu borom wax ci li nga xam ne moo xew ci xutba boo xam ne tegu ko dul ci charia ak ci ak ak ak ci li li nga xam ne mooy euh, euh, xadis yi nga xam ne danañu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko doon wax Ibrahim, imam Ibrahim si, presque 43 ans mais c'est terminé c'est fini mais mu ngi parce que mu ci il rek xam ndax dina mais mu ngi bàyyil li ko commentaire bi mu commandé affaire bu marche Charles Hebdo mu ngi 12 citoyens sénégalais 12 gamins ñaari soxna. fukk ak ñaari gone yu ndaw yoo xam ne tey amuñu ci kenn ku ñu mën a sukkandiku amuñu kenn ci ku ñu bëgg a lii yëpp li ko indil mooy li ma leen di wax tout le temps la facilité extraordinaire ak laquelle ñett ñi dañuy jàpp ay nit yu dugal ci kaso yi. la facilité extraordinaire ak li nga xam ne ñuy xëy di yàqal nit ñi si teraanga teg ko ci ni yàlla jox na leen pouvoir deux Gaw Ibrahima Sëy bëgg kenn ku ne fu mu euh, dinañu dans les commentaires ci premier épingle bi danaa leen bàyyi contactu famille am sax ngeen contacter pour mais contactu famille am ngeen mën dimbali te parce que année scolaire bii ñu jëm Ibrahima Sëy imam Ibrahima Sëy bu doomam yi dem école comme mais nit ñi ñi nga xam ne ñooy atte ñi nga xam ne ñoom ñooy rapporté ñi nga xam ne mooy xarit bi nga xam ne moo ko enregistré woon xaw ma fu mu mënti nekk ci kaw suuf mais na xam ni Ibrahima Sëy ma nekkoon xaritam Ibrahima Sëy ma nekkoon imam ba nekkoon Kolda tey ab dof la tey tàggoon ak xelam tey mu ngi ci hôpital psychiatrique hôpital ko fa fi may fi may jeexale <clears throat> moo di fan yii yëpp ñu nekkoon gis ngeen gouvernement bu bees yi nga xam ne président Macky Sall teg na ko fal na nit ñu bari bu fekkee ne am na ay ay ay nomination yi nga xam ne dañ koy saluer yu mel ni euh, euh, nomination wax dëgg yàlla ku mel ni euh, Doudou Ka ak nu mu manti demee Doudou Ka dafa mas a tout cas.

lu mel ni par exemple Amadou Ba bu ñu yaakaar ni dina ñu pour mu fexe li nga xam ne mooy jàmbat yi ñu arrêté ko ñu ngi leen di xaar ñu leen di seet ñu ngi yaakaar ci ñoom ñu mën a régler les problèmes du moment parce que ni ma leen ko waxoon foogoon naa ni ku mel ni Aliou Ndiaye foogoon naa ni ku mel ni Amadou Ba bu ñu nekkoon ci gouvernement Macky Sall ces trois dernières années fitna yi ak yu bëri yi nga xam ne xew na du xew waaye it am lu ma tiital parce que wax naa leen fii saa su bi nga xam ne ci régime Macky Sall jàpp na ay journaliste dóor journaliste toj caméra journaliste toj euh, micro journaliste yàqati yëfu journaliste dara génnu ci moom mooy Moussa Bocar mooy le bi nga xam ne mooy maire Ouro li ma tiital ci yëf yi Moussa Bocar Thiam amul militant yu ko bëgg la bokk mu war leen nekk ci Wuro Sogi jaay leen fitna jaay leen doole saa yu fay dem yóbbu leen ay nervi bu ngeen di fàttaliku moom mooy ki nga xam ne bi Ousmane Sonko ak ay partisans demoon Wuro Sogi ci premier fois premier bi mooy élection locale yi moom mooy ka yóbbu woon nervi ya fa nekk nervi yi empêché la ñu def fa moom mooy ki nga xam ne mu yóbbuwaat encore nervi yi ci élection législative par gendarmerie anticipée empêché nervi yam ñu yàq mooy nit koo xam ne fitna ak dóore la xam tey Macky Sall moom la jël mu ne moom la dëkk ministère la communication mooy man sama ministre man Babacar Touré man journaliste ñun journaliste yi kooku mooy suñu ministre. alors que kooku moom mooy ki nga xam ne mu dóor ab journaliste mooy sama journaliste Kéwoulo moo toj man su may matériel toj samay caméra te dara génn ci Macky moom la jël mu teg ko ministre la communication. kaddu gu mu njëkk yëkkati dégg ngeen ko ne premier décembre képp demul

mais il leen mettre en place un gouvernement de combat combat qui wolof mooy xeex ay ñu ñuy le président Macky Sall tegal ñu ci gouvernement ñu tax na li nga Sénégal tax na li nga su ragal nañu Sénégal parce que ku lire entre les lignes bu mën les signaux yi nga xam ne Macky Sall teg na ko xam ne ni du reculer le troisième mandat Il faut présenter le troisième mandat Nous préparé préparons. Pour tuddeetuñu le troisième mandat nous avons le deuxième quinquennat président il faut nous organiser pour préparer le président pour un deuxième quinquennat Moi, le mandat le mandat at parce que pour le mandat bi mu njëkk a def beaucoup de ñaari donc que ngeen nangu ko que ngeen bañ ko nangu ku nekk na dugal ci boppam ni suba ñu ngi dem ci ay guddi yu bërsëtagul ñu ngi dem ci président Macky Sall taxaw ña ànd moom taxaw parce que ay xeexkat lañu ay combattant la jël ci gouvernement bi pour ñu wax ñu ni fu ñu jëm troisième par force la mbokk yi euh, li mooy li ma leen bëggoon a indil di leen ñaanal jàmm diko sakusien, sàkku si ci kenn ku ne di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmm leen Sénégal tay bëgg na kenn ku ne bo wété sa xel ci Ibrahima Sey ci imam Ibrahima Sey xalaat njabot yi xalaat fukki doom yi ak ñaar ci ban monde lañu wër bu naka lañu wara a xalaat soxna yoyu nga kenn ku ne am na benn doom te kenn ku ne tey amuloo dara lu dul nga dem loué benn panthère benn néeg war fa nekk ak sa njaboot njaboot googu année scolaire bi commencé na ñooñu tey fan mooy war a nekk seen taxawa taxawaay mbokk yi lii moom laa leen indil moom laa bëggoon waxtaan ak yéen fan yii incha allah ko suñu borom maye kattanal ñu dana leen indil. dossiers yu bari bari bari bari parce que bëri na ay dossiers yoo xam ne ñu ngi tegu suñu table wér-gu-yaram bi moo ñu mayiloon ñu mënoon a jàkkaarloo ak yéen mais euh, ndëgëm lu suñu borom indi euh, ñu ngi ko koy sant danañu gën a taxaw incha allah waxtaan ak yéen euh, ci lépp li nga xam ne lu jëm ci Sénégal jërëjëf.